ci moom la ñu bare bari ci askanu Sénégal di waxtaanee ci réew mi réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de sàll te muy dëgg mooy élection présidentielle 2024 Macky Sall waxagu ji kàddoom gu mujj loolee mooy dëgg réew mi ko di jeex moo xëy di ñu ko xibaar te nag nee na ci lu jëm ci taxawalaat gouvernement bi jiital ab premier ministre ak ci assemblée nationale mu wut kum fa tab ci calcul politique ci la Macky nekk xam ne maanaam moo làqu ci mbir mi ndax Macky Sall bu taxawalee ab gouvernement du ñàkk nag xam ne dinañu wane seen mer maanaam frustration bi dina mel ni tulleeg ci biir Benno Bokk Yaakaar ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien nee na am na jege ñaale Macky Sall yoo xam ne ñoom wax nañ ci lu leer naam sax dañoo nëbb seen tura ne Macky Sall nag candidat lay doon ci élection présidentielle 2024 yéen kay gii di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de Sall ma day nekk candidat 2024 xaw ma du ko nekk waaye nag ci assemblée nationale xel mu dal ndax nag li nga xam ne moom la rawee opposition bi ci ay député député bëriwul te dafay tiit gaa yi wor ko gaa yi wor ko ci assemblée nationale loolee ci la Macky Sall nekk yéen kaay gi di enquête nee na assemblée nationale Macky Sall moo yay tiit ndax enjeu yi nga xam ne moo am ci biir assemblée maanaam moo bëri gis ngeen assemblée nationale bii ay mbetteel man na ci am ba tey ci journal bi nee na nag bëri na ay parti politique yoo xam ne ñoo ngi def ay manœuvre fii ak 12 septembre bi nga xam ne ci la ñuy installé assemblée nationale yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na ñun waxuñu sax ci assemblée nationale nañu wax nag ali kalaj gi xam ngeen ali kalaj gi nga xam ne moo am ci réew mi mooy dund gu cher gi loolee mooy ali kalaj gi te loolee nag moo jar a waxaat waaye nag li nga xam ne moo ci ñaaw te doy wara mooy noppi gi nga xam ne moom la ci état bu Sénégal noppi ci njëg yu yokk yi état bi daf cee noppi moo tax journal bi du Sud Quotidien xëy fësal ci xëtam mu njëkk le silence coupable de l'état yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa économiste bi di Meïssa Babou nee na nag fii ci réew mi bëri na ay produits locaux ay produits yoo xam ne fii lañ koy defaree wala fii lay ñoree maanaam yokku gi ñu ko yokk kenn munu ko nag justifier ndax nag yokku la koo xamante ni tegewul fenn te bu ñu waxee nag ñuy taafantaloo naan waa guerru Ukraine bi xaw ma guerru Russie bi yow produit yoo xamante ni ay produit locaux la nga yokk ko ba pare bëgg a taafantaloo guerre bi loolee ci boppam moo mën a ñàkk yéen kaay gi nee na nag lépp état bu Sénégal bi nga xam ne moo waroon a lijjanti mbir mi te lijjanti wu ci dara damam daf cee daal di noppi yéen kaay gi di a turbina xëy duñu xibaar naan ñu retrouvaille famille libérale yi ñoo ngi koy wax waaye nag du nekk loo xamante ni lu yomb lay doona maanaam juboole Abdoulaye Wade ak Macky Sall loolee c'est impossible li nga xamante ni nag moo ko waral mooy fàtte ci boppam dafee xëjul nawetub daaw bi nag fi la ñu fekk léegi seen yëpp xàmme nañu ko ndax nag gaañ-gaañ yi nga xam ne moom la Macky Sall gaañ waa kër Abdoulaye Wade ba léegi nag léegi di ñoo ngi see maanaam cicatrice yi ba léegi ni dañu ko la loolee moo tax juboole Abdoulaye Wade ak Macky Sall dina jafe lool yéen kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naa ñu nag jamono ji ñi nga xam ne nag ñooy liggéeykat yi nekk seen anhu nar na ñu leen a teg musiba ma bëkkumba ndax liggéeykat yi ginnaaw bi ñu demee ci ab gréwa boo muy tuwulee nag seen salaire yi dañu koy dagg waaye tamit convoqué leen fi nga xam ne mooy police moo tax liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk seen woowa ñoom nag nee nañu ñaari fan ci weeru septembre dinañu amal am mars yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na gis ngeen ñii nga xam ne ñooy waa seen woowa ñoom nag nee nañu ci week-end bi dina am ñoo xam ne maanaam nag ndox moom duñ ko gisa journal bii di réew mi quotidien nee na askan wi nga xam ne ñoo dakaara Dakar duñu am ndox waaye nag yokk ci askan askan wi yeewoo Louga yokk ci tamit askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Mbuur yokk ci tamit askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Thiès yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba de sala week-end bii dina bëri ay gox yoo xamante ni maanaam du ñu am ndox yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu hôpital Dantec bi nga xamante ni tëj nañu ko jur na musiba hôpital ba ñu tëj jur na musiba jur na musiba ndax lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay médecin yoo xamante ni jamono ji dem nañu chômage technique yéen kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu démb nag dénk comité d'organisation màggalak Touba doon nañu réunion ak ministre de l'intérieur ca ministère de l'intérieur ci lu jëm ci wàllu màggal gi waaye nag am na lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom ñaar ci mesure yoo xam ne moom la ñu war a jël ngir màggal gi lépp yemb li nga xam ne waxtaane nañ ko niki démb nag ca ministère de l'intérieur bokk na ci lu jëm ci nag wàllum inondation yi ndox mi nga xam ne jamono ci ma ngi jaabaa jonge ci biir Touba waaye tamit ñàkkuk ndox gi nga xam ne dañu koy faral di jànkonte ak mooma waaye ñàkku kaaraange gi yokk ci wàllu wér gi yaram ñam gi yokk ci électricité lii lépp nag waxtaane nañu ko yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na vie privée léegi moom léegi mu jeex ci réew mi maanaam kenn duutu amati vie privée foofee la ñu jëma ngir nag WhatsApp Facebook Instagram ak TikTok yéen kaay gi nee na sa jàmm gën ab étudiant ak commerçant la ñu fa jàpp ñu yor lu toll ci juróom-ñetti kilo yamba yéen kaay gi di Vox Populi nee na Emmanuel Macron njiitu réewum France dafa demoon ca Algérie waaye Macron dafa mer ba maara de tale Macron li